bismillah yaa mawlana aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa bihi nastain wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi ànd ak ñun ci jitaay bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu ak fépp fu ngeen man di bàyyi ko ci seetaan lii nga xam ne mooy bis bu tedd bi nga xam ne amoon na. bis boobu nag ñu ngi ko amaloon ci bisu dimanche muy tolloog 10 janvier ci atum 2016 waaye muy tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmu ci 1437. loolu nag ngeen fas yéen ci ànd ak académie Minane Baal Khadim ak groupe Istikhama TV. muy yendu bii nga xam ni sëriñ Muntaxa Mbàkke jëmu ju tedd jooju amaloon na ko ci biir kër ba Basiiru Mbàkke fii ci Touba ngir mu doon bis boo xam ni daf koy jagleel ñi nga xam ni dañuy yëngu ci xam-xam mu di leen ci sargal doon bis boo xam ni da leen ci tatagal waaye mu ànd ko ñoom feeñal mbégteem ak seenu ànd ci li nga xam ne moom mooy liggéey sëriñ Touba ci xam-xam bis boobu nag day lu sëñ bi fonk lool ren ji doon ñeenteelu at mi bi nga xam ne tàmbali na ko ak léegi moo taxit doomam ji di sëriñ Cheikh Khadim Mbacke feggoo ak sëriñ Mountakha Mbacke Mamour ñu nekk di dalal gan ñi ba tax ñu am barab boo xam ne dañ ko jagleeloon li nga xam ne mooy tatagal gan ñi di leen jàllali ci daluwaay tedd yi nga xam ni sëñ bi fàggandikul na leen ko ci bis bu tedd bii mu doon bis boo xam ne bisub saafonte la waaye bisu kañ leen ak bisub fàttali leen lii nga xam ne moom mooy xam-xam mooy ni liggéey bu tedd la boo xam ni bu jara góorgóorlu la waaye bu jara pësseef la ndax ku tedd ki nga xam ne mooy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba di da koo tegoon fu kawe lool xam ni lépp loo xam ne jag na ci àdduna xam-xam moo ko jagal waaye nag liñ ca yóbbu mooy ndaw ñi ñu teel leen a sóob ci lii nga xam ni moom mooy sàkku xam-xam ndax ci lañu ñu amee seen texek àdduna amee ko ci texek àllaaxira ngir xam loolu nag dafay laaj kilifa gu tedd gu mel ni Serigne Mountakha Mbacké ak pëstéefam ak euh, li nga xam ne moom mooy aw doxinam ci sargal leen ci fànn bu euh, teraanga man di bàyyi ko mu koy séq ak ñoom di leen ko defal di fekk ci seen barabu liggéeyukaay di leen ci sargal waaye it mu tànn bis bii nga xam ne moom daf leen koy jagleen ñu ñëw këram yenn ndoog moom ci pëstéef waaye yenn ndoog moom ci waxtaan ak ñoom waxtaan yoo xam ni dana leen gën a delloo ci seen borom gën leen xamal ni leen xam-xam day mooy tool bi nga xam ni ci la lépp di jege àdduna waaye ci la lépp di jege àllaaxira loolu nag moo waral sëriñ bi su dajalee borom xam-xam yi ci bis bu day noonu it day laaj bis boobu doon bis boo xam ne bis bu jar a bàyyi xel la waaye doon bis boo xam ni it ñoom borom xam-xam yi fu ñu daje it dara loo xam ni war naa mën a indil askan wi njëriñ. ci seen diine waaye war na leen mën a indil njëriñ ci seen àdduna yit su ko defee loola it mu doon loo xam ne lu ñuy waxtaane la ngir lépp gën a mën a jëriñ mbindeef yi loolu it moo waral bi nga xam ne amal nañ bis lu uh, dal gan ñi ci dimanche ji ca samedi ja rek la daal di jàpp benn bis bu nga xam ne mooy bis bi ñu jagleeloon nu ñuy def ba lii di xam-xam ci dëkk bu tedd bii di tuubaa daal ñu gën cee xalaat gën cee am aw doxin wu leer waaye gën cee séq ak jataay borom xam-xam yi nga xam ne bàyyi ko ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ak Bambey ak ak université Gaston Berger ba ca Saint-Louis day ñu def ab lël boo xam ne dañ koo jagleel ay gëstu waaye gën a càmbar li nga xam ne moom mooy xam-xam ci Touba. loolu moo waral bañ demee ba yegg ci tëj loolu ci atelier yooyu ñu amaloon rakku Serigne Mountakha Mbacké bi Serigne Sakha ñëw na ngir sargal leen ci loolu liggéey bu tedd boobu ñu defaloon. waaye won leen ni leen pësteef la boo xam ne sëñ Muntaxa mu moo koy ànd ak ñoom kon ñu bàyyi sëñ Isaaxa Mbàkke loolu loolu mooy li li ci am solo mooy ne lii ngeen def lu am solo lu ne tuuti lay génne waaye la fait que at yi nu am ku mel ne sëñ Muntaxa muy xalaat ci loolu ba ba woote lu mel nii nga xam ne c'est mën naa ne sax c'est révolutionnaire daanaka ci cadre boobu nga bëgg a waxe ah mu am sëñ bi d'accord ci Eh, ndax sëñ Muntaxa fi fi mu féetee ci yoon wi keneen xam na ne Pastef rek ay tax bu jóg kon lu mu ànd lu ne ñëpp xam nañ ne yëfi Pastef la yëfi sëñ bi la kon looloo tax lii am solo lool. document boobee mooy bi am solo kooku moom ci lañ ngeen di la fexe bam synthétiser liñ bëgg ci éducation système d' yi bi nga xam ne moom lañ bëgg Touba te li may wax mu nar a nekk système <laughs> éducatif bu Sénégal ndax ñun ñëpp xam nañ na professeur ngi du ma weddi échec gu système éducatif bu Sénégal mooy dafa adapté wut ak suñ culture suñ réalité loolu nag kon xalaat loolu tax lii bu bu mu tuuti xalaat lu nga xam ne dana gën a dëppoog euh, suñ réalité te ku ko bañ a ku ko nanguwut murid mouridisme moo incarné daanaka réalité culturelle bu Sénégal kooku moom daanaka national laa bëgg a wax kooku kon lu lu lu nu man def weesu fii ëllëg te te itam dana dana wuute ña nga xam ne ñoo nar a génne ci génération yooyu ba dem université ba yor loolu bañ baatu formaté <laughs> génne na ko bañ génne leen ci loolu ku ne xam na ne Sénégal googee dana wuute Sénégaluk léegi système éducatif dina wuuteeg bu léegi yaakaar naa ne lii problème bi yëpp mooy grève yaak nangam nangam naa yooyu bu fekkente ne système bii ñu bëgg a jaarale fa yaakaar naa ne yooyu yëpp dana néew la ndax ñi ñuy yar danañ xam li ñuy wuti ndax loolu mooy li ci am solo exemple bu tuuti Proxaan di nga xam ne système éducatif dafa am solo daaray Maam Jaara système bi leen def dafa dem ba ñoom ñu xam ne. war nañoo wuuteeg ñeneen ñu waxtaan ci seen biir ñoom de ba ne nii leen war a mel ku commencé di mel noonu waa da waa daara direction bi di gis soppat ñu doog a wut délégation bu dem wax ak waa li nga xam ne moom lañ xalaat ne dañu war a mel ba tax ñu gis ñoom ak coppat li bëgg a wax rek mooy buñ commencé système ña cay nekk li ma wóor dañ daal di wuuteeg. ñu ndax danañ am conscience ci liñ leen defal ndax éducation bala moo am solo ki ñu koy def teel a am conscience ci lim bëgg ci ci ci fi mu jëm te loolu réalité rek mu muy dund réalité moom rek moo koy moo koy waral boo gisee lépp échec kenn ku ne yaa ngi yàkkamti am xaalis dagg sam njàng dem ci formation ba ta ta ta loolu lépp réalité yi bii ñu ni dundal la mooy réalité alal réalité xaalis réalité compétition bu jëmul fenn lu àdduna yaakaar naa ne li nga xam ne moom la ñuy wuti buñ ko jaaralee compétition bi am mooy bi nu yàlla sant compétition bi gën a jëm ci lu baax wuti lu baax gone ya ca yaroo loola la ñuy yaroo loola la ñuy dem loolu mooy li am solo loolu tax assise bi di lu am solo lool looloo tax itam ma ma insister ñaan ñu ci dugal yaatal ko ba nga xam ne la cay génne dana nekk consensus bu nga xam ne dana refléter li nga xam ne mooy liñ bëgg ëllëg kon nag loolu yéen a ngi ci yoon wi yaakaar naa lool sëñ Mountakha mi nga xam ne moo woote te te te bu yàgg ba tey gis-gisam mooy murid yi dañuy dund ci bëgg sëñ Touba waaye xamuñu ko fekk xamuñu ko danañ xam sëñ Tuubaa mooy xam xam yàlla xam sa borom xam xam lu baax xam alquran xam loolu passiwul sëñ sëñ Tuubaa moom mu ne <laughs> xam sëñ Tuubaa passiwul loolu xam sa diine bu wér xam àdduna bu wér loolu loolu loolu ca loola nag la lu baax lépp di génnee mooy mooy daanaka lii conclusion sëriñ Mountakha li wax looloo tax lu am solo la jéem a def ay base yu nga xam ne danañ ci tegu wóoru dafa mel ne document bi ni nga ko waxee wala lu am na lu génn lu nga xam ne dafa mel ne ñaari système est-ce que dañuy créer lu bees est-ce que dañuy jëf synthèse franco arabe man yaakaar naa li gën mooy jéem a créer jéem xam ndax yooyu yëpp lu am na yooyu yëpp <laughs> am na échec ñaari yëf mooy li am importance foog naa ne ci ci système bi adawaat li sëñ Tuubaa tuddee adawaat yi nga xam ne moom la ñuy jàngee moom lañuy ñuy acquérir xam-xam yi yàlla def na fi ñaari réalité arabe ndax l'islam français ngir colonisation imposé nañ ñu ko réalité la donc kooku ay aada langue nationale dañ ko écarté waaye buñ bëggee def système bu bees bu dëppook suñuy réalité langue nationale du mën a ñàkk yaakaar naa ne suñ malheur yëpp mi ngi ne amunu langue nationale donc amuñu culture bu ñuy basé suñ dara bu ñu ko amul lu ñuy bind suñu yëfi bopp mënuñoo pensé lu dul keneen te feeg looloo nga am du sotti kon nag foog naa ne système bi moom mënut a ñàkk tegu ci alaat yi ñu koy defee muy arabe ak français ak langue nationale lañ cay def nag ay continuer la <laughs> ay continuer la la ca def moom nooy seet nag continuer yan ya nga xam ne moo gën a dëppoog suñuy réalité la ca jiitu mooy diine léegi ak ak ak yar ba ca war ak base diine ci ñun mooy alquran comme lu mu mën di def bu ñu mën di def il faut ñu jàng alquran am éducation bu nga xam ne nit ñi dañ teel a xam seen bopp teel a xam seen seen seen fañ jëm loolu lépp ci diine la bokk teel a mën a acquérir xam-xam nga xam ne moo amal njëriñ ab société loolu loolu tax. xaw ma lu ngeen defi waaye man <laughs> maa ngi leen di ñaan base toujours matière scientifique yi jiitu ci donte dañ koy tàmbalee ci baas bi sax ba nga xam ne Touba dana créer ay boroomi xam-xam ay scientifique man sama gis naa ne diine dëgg dëgg dëgg alxuraan dëgg dëgg neexute xam te yàlla mayu la nga am xam-xam yi nga xam ne mooy tax a dégg alxuraan te am science esprit scientifique te am ci base yu wóor yu nga xam ne mooy mën a tax nga mën a def tatqiq ci yenn gën a mën a dégg yenn ci alxuraan te itam rawante adduna si paas yu xam-xam <laughs> fekk acquérir nañ xam-xam yi nga xam ne mooy taxa nit a dem dun dem fenn kon nag dès le début ay ay ay ay ay littérature jëlee ñu dara ci bu man di doon li nu jëriñ mooy xam-xamu diine bu dëgër xam-xam bu dëgër scientifique bu dëgër man yaakaar naa ne bu ngeen mën di def foo ñu jiital ci yooyu luñ mën di jàng jiital xam-xam scientifique di ko teel a xamal xale yi suñ retard yépp loolu la te loolu li ko waral rek mooy intérêt tubaab bi musuñoo soxla nu xam lenn lu lu ñu mën li leen mën a jëriñ science soxlawul ñu xam ko puisque am lañ ci am am nañ ko mën nañ koo jëfandikoo seen bopp te mën naa am buñ ko xamee mën na concurrencer ak ñoom ba nag ni looloo fi ne boo demee ci école yi ba tey <laughs> professeur yi école yi tàmbalee ci primaire ba ca kaw ñiy def littérature ñiy def langue amul njëriñ ñoo fa lan lay jëriñ lu acculturation yokk ko ñu tuuti fu ne fu ne njëkk gën a tuuti ñoo koy def science ci Afrique yëpp malheureusement sëñ Touba mi ni jox système bi nga xam ne mën nañoo inspiré wu ci moom la nga xam ne mooy suñu idéal sëñ Touba xam-xam lay prôné sëñ Touba dafa dafay boroom xam-xam bu prone xam-xam te xam na ne diine yàlla mu ne su koo xam ci lu dul xam-xam te mooy base bi diine mooy base bi lépp ku amul diine mënoo dem fenn. <laughs> gis nga xeex beeg adduna si jaxasoo geeg yooyu yëpp mooy ñàkk am base diine morale bu tax ñu mën a xam seen bopp jaar fi nga xam ne jëlee leen kon nag système mu Touba war naa nekk système idéal idéal boo ko waxee day boo ko waxee même ab scientifique bi day defee ne li ngay wax bon waaw <laughs> misaal ya nangam nangam mais lu jaarul ci loolu bu jëm fenn loo gis mu rëy ambition idéalistique <laughs> boobu nit ki moo ko moo ko andi <laughs> moo ko andi looloo tax def leen image leen système bu nga xam ne mooy système idéal pour Touba te li ma wóor mooy li ngeen di génne fii lum dana mas a nekk système éducatif bu Sénégal loolu rek laa bëggoon a wax kon nag lii ngeen def ngeen xam ne tuutiwul il faut nga xam ne tuutiwul daje bii tey c'est historique histoire du dara lu ëllëg <laughs> la nga xamee dañ ne ay benn bitel nañu dañoon di ko xalaat ba tey mu agsi fii kon nag du lu tuuti kon nag yéen ñi ci yëpp yëpp na ngeen xam ne yéen a ngi liggéeyal histoire te loolu mooy liggéeyal sëñ Touba xam nga ñun dañoo am change mooy sëñ Touba dañoo won ci lépp ne àdduna ci lañ mën a defee àllaaxira munoo dem àllaaxira te amoo àdduna synthèse boobu buñ ko xamee rek lépp sotti loolu loolu loolu bu ñëw rek maa ngi koy wax foog naa ne bon li li li mu di collé murid baatub liggéey baatub liggéey baatub liggéey loolu la ci am solo foog naa ne am na déviation bu ci am dama ne sax loolu ci pexe yi la bokk lu tax lu tax collé nu liggéey te cole wuñ ñu xam-xam liggéey ñu nu ko dàq du jeex <laughs> ñuy liggéey ñëpp te bu dee liggéey rek wax naa kese ñu ne ko dàq du jeex mais liggéey bu am njëriñ te yàlla tax nit kii liggéey loola la sëñ Touba loola amalu saalih mooy lu simple li alquran da koy génne e, e, boo gisee lépp alquran waa amilu saalihaati amalu saalihaat du dara lu dul jëf lu am njëriñ amal nit ñi njëriñ kon la dul loola bon nekkatul lu am njëriñ ku ne mën na ko <laughs> te loolu éducation mooy mën a tax nit ki di liggéey ngir yàlla di def ngir yàlla di def ngir digganteem ak boroomam di def digganteem ak moroomam ci loolu la société bi mën a demee ñëpp jariñu ci xam nga benn système bi la li li li li ñuy séparé diine maa ngi dugg ci lu nga xam ne sax beneen yëf la waaye séparation bi ci boppam pexe la <laughs> kenn mënut a am sa diine te defoo ko ci àdduna si kenn mënut a liggéeyal yàlla te defoo ko ci àdduna si kon nag lépp ci àdduna si la kon kenn mënu ko séparé li ngeen di def lu am njëriñ la lu am solo de ëpp na sax njëriñ la loolu mooy mënut a ñàkk bu yàgg la waroon a am kon nag na ngeen xam ne histoire ngeen di liggéeyal xalaat leen lu am solo continuer ci jërte sax yàkkamte noona ndax daaw ak ren jege na lool ñu fi defee kii bi ñu defaatee leen loo tax jërte yàkkam nañ fexe ba bu ngeen di présenté lañuy ñuy présenté nekk lu nga xam ne ku ko gis xam ne lii moom laa bëggoon a mel moom laa bëgg sama doom mel ni paasiwut loolu loolu loolu rek laa bëggoon a wax ci ci ci jëf yi donc leen di gërëm nga xam ne liggéey sëñ Tuubaa bu ko gën a ñor rek amut fi ne loolu tax ma naan bu leen xeeb <laughs> seen seen jataay bi waaw kay yal ko yàlla àggaleeg jàmm yal na waaw waaw lii de lii de lu am solo la de wax dëgg yàlla waaw waaw te xam naa ne sëñ Mountakha dana leen ko wax moom mi nga xam ne léppam xam na ne léegi xam-xam ñàkk xam-xam a ko waral lépp day wax na ñàkk te loolu la itam <laughs> loolu pexe yu bari dañuy dugg pexe yooyu nag dañ ko déchoué. ba ngeen ñëpp jàpp nañ ne murid daaw ñu jàng ah kay murid naka jekk ñu ëpp ñu borom xam-xam damay wax ne toujours murid di naka jekk ñu ëppoon borom xam-xam yu jàng rek diine xañ na feeñal geeg nangam ak naam loolu nañ ci wéy bu ñu amee système nag bu ñuy bu ñuy jaar loolu loolu sëñ bi te te gone yëpp bëgg xam-xam man loolu daf maa yéem fi mu ne Tuubaa damay dox beeg léeg-léeg ñëw ñaanal ma xam-xam laa bëgg ñaanal ma am xam-xam dañ daan ñaan dara xaalis wala dara waaye gone gu ñëw di la ñaan loolu damaa bëgg xam-xam loolu doy waar la te man li may rencontré léegi ci loolu du jeex loolu dal xel la waaye lu ma a taxaw la ñëpp gone yëpp ñun ñëpp a jaar ci bon léegi bi ngay wax ñaari système yi mën ne sax ñetti système la ba nga xam ne am na système bu nga xam ne dañoo jaar nii rek jàll ñenn jàng France jàll ñenn itam lañ def seen si ñaar yëpp loolu loolu itam man foog naa ne mooy kii ñun ñii ñëpp jaar nañ ci <laughs> lii jaar ci lii ba foofi dem kenn du la xàmmee ka jaar ci beneen système ba waaye yow am nga li nga am lu nga xam ne amuñu ko loolu nag si bi moo mat a wéyal nitu sëñ Touba il faut mu wuteeg keneen taalibe du nii rek nu ñuy waxee sëñ Touba mu morom dañ ko war a liggéey ah def ko ci nit ki mu nga xam ni sëriñ Isaac Mbacke ñaan na ci jataay bu tedd boobu nga xam ne jataayu loolu la woon boo xam ne dañ ko jagle jagleeloon njàng mi ci Touba lu ñuy gën a amee njariñ ak dëkk bi ndaw ñi nu ñuy gën a mën jàngee ba jëriñ seen askan. kon nag loolu mu doon kàddu yu tedd yoo xam ne warees na cee mën a xamee ni lël booba la see wax lépp lu am njariñ lay doon waaye nag lu ñuy ñaan yàlla su borom yi mu sottal ko ci baaxu Sëriñ Touba loolu it mu doon liggéey boo xam ne kilifa yu mag yi danañ ca jot ba mën cee jëlub dogal. loolu it la ñu daal di wéy ak ba ca dimanche ji nga xam nag ni moom mooy bisu berne bi nga xam ne moom la Serigne Mountakha tànnal boppam di ko jagleel borom xam-xam yi mu doon gis bu tedd boo xam ne daal di nañ bàyyi ko fu nekk ndax doon loo xam ne doon na seen bànneex doon it loo xam ne na xam na ni jëfu yiw rek la waaye xamit ca it ni Serigne Mountakha day waar yi nga xam ne ñoom ci la nekk. sëñ bi fonk na ko jox na koy it gëdd gu mat sëkk waaye nag euh, safoo na ko bànneexoo ko lool ba tax na ñoom ñëpp maase nañ seen xol sedd ci lool ki noonu it xam ngeen ni woote bi daa doon wooteb sargal waaye wooteb bernde ndax kenn ku nekk waar wa mu nekk ca lañ koy mën a sargale waaye ca lañ koy mën a ndokkeele Serigne Mountakha nag xëram ci xam-xam euh, doonu loo xam ne lu kenn di nattable la ndax moom soññee bi ci làmmiñ ni mu koy defee it noonu la koy defee ci jëf te loolu it mbooloo seede nañ ko waaye loolu it képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci xam-xam it loolu euh, daal di nga ci teg sa bët no ni noonu la ñu dellu woon nag ci dal bi ginnaaw boo xam ne joxe nañ jullik euh, tisbaar gi fas yéene delluwaat ci dal bi bis boobu nag doon bis boo xam ne it ñoom boroom xam-xam yëg nañ ca ni kat teraanga ji nga xam ne moom la leen sëriñ Mountakha defal dafay yelloo buñ fi dajee it ñu def ay xéwal bernde bernde googu ñi nga xam ne moom lañuy ñu defal sëriñ bi nag ñoom nee nañ mooy jàng alquranul karim sargal ko ci waaye ñaan sunu boroom ci barkeb alquran sëriñ bi eh, yàgg lool ci sunu karam am sunu kaaraangeeg sunu borom ba nga xamante ni bii nii danañ ko yàgg fekk ci bis bu tedd bii yàgg ànd ak moom liggéey bi nga xam ne moom mooy liggéey Serigne Touba ci toolu xam-xam ndax alxuraan moom mooy lépp te xam-xam bu ñuy wax ci kaw suuf rek ci alxuraan la bàyyi ko rawatina nag li nga xam ne moom mooy diine lislaam bi nga xam ne ñun mooy suñu diine ci la suñu njëriñul àdduna nekk ci la suñu njëriñul alaaxira nekk kon eh, gis ngeen mbokk yu tedd yi noonu di saafonte Eh, mu doon ay borom xam-xam yoo xam ne xañ na jitaay yu mel nii dana leen may ñu mën a nemmeekuntewaat mën a saafoontewaat ndax seenu gëj a gise kenn ku nekk di bay waaram ca tool ba mu nekk waaye it mu doon bis boo xam ne bis bu dajale ay kilifa la ñu bàyyi ko ci ay gox yu foccantiku kon eh, ñu ngi noonu eh, di jàng nekk ci xasida yi alxuraan yi xasida yi ak alxuraan karim bi mu doon bis boo xam ne daal bis bu màgg la boo xam ne bisub mbégte la euh, bi ñu moo kaamil bi nag euh, la ñu daal di ñaanal sëriñ bi euh, sunu borom sàmm ko yàggal ko fi te aaral ko xam ngeen ni euh, bis bi dafa yaatu ba tax na it euh, euh, ñi ngeen di gis noonu muy soxna yooyu nga xam ne ñoom it seen pësteef dafa lang ak pësteefu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yu tedd yi nga xam ne ñëwoon nañ ci bis bi ñoom ñu gis ni yell na ci ñoom it ñu am ñaan yoo xam ne danañ ko delloo sëriñ bi ñaan sunu borom mu barkeelal nu ko ñaan sunu borom mu yàggal ko ci suñu kanam moo tax. nu uh, wàcce fa alquranul karim jàng ko ñaanal sëriñ bi uh, soxna si tedd su moom it mi ngi noonu nekk ci bernde yi nga xam ni moom la sëñ bi jagleeloon gan ñi ngir mu ñu man leen a defal ay teraanga yoo xam ne it uh, danañ ci sant bu baax a baax soxna Baali. moo taxawu berne yooyu ngeen di gis noonu ànd ci lool wax dëgg yàlla ak Pastef ànd ci lool it ak euh, liggéey bu sell boo xamante ni ñi teewoon ci bis bi ñëpp rafetlu nañ ko te it Pastefam ci kër gi ràññi ko lool euh, di ñaan sunu borom it mu defal ko barke ñaan sunu borom it mu sàmm ko te yàggal ko fi xam ngeen nag ni sëriñ mun taxaa moom lii dafa doon loo xam ne mbégteem la teyit liñ ci wax rek mooy jubluwu ci lenn lu dul bëgg xam-xam waaye jubluwu ci lenn xam-xam gis ni mooy li nga xam ni moonu mën a jële fii ñu nekk yóbbuñu ci sunu borom ci ruu yu sell lool bi nga li nga xam ni moo tax sunu borom binduñu te mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun te jaamu googu nag mënul am ci lenn lu dul ñu am li nga xam ne mooy xam-xam waaye xam goo xam ne day ànd ak ragal yàlla te loolu it ci xam-xamu diine rek ci la mën a jaare muy alquranul karim Serigne Cheikh Abdou Latif mi ngi noonu moom doon jëwriñ ji nga xam ne moo jiite lii nga xam ne moom mooy bernde yi eh, mbokk yi nga xam ne ñoo ko ci doon jàppale it ànd ak moom ci pësteef ak sell eh, te it sëñ bi ni mu fonkoo ngan ji nii noonu la xiirtale nit ñi delloo leen ci seen borom xam leen ni leen fàttali leen li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla gi day mooy li ñu fi indi te mooy li fi bàyyi daa doon li nga xam ne moom mooy yoon wi ni mën a jaar ba sunu jaamu googu ñu mën koo nangu mu doon jaamu gu sell sell sell bis bi daal ni ñu ko mën a gàttale mooy bis la boo xam ne Serigne Mountakha Mbacké moo ko tànnal boppam mu doon bisu bernde ak sargal ngir ñi nga xam ne dañuy liggéey ci xam-xam di ci yëngu waaye nag loolu yëpp nañ ko mën a déggaate day mooy ab soññi rek la mën a doon gis ngeen dal yi noonu foofu yenn ci dal yi la mu doon dal boo xam ne it mbooloo mu takk ñoo nga fa woon ak it kilifa yi nga xam ne am na yeneen dal yoo xam ne mi ngi woon ci biir kon daal bis boobu bis bu am solo la woon waaye bisu fàttaliku la waaye bis boo xam ne it xol yi seddoon na ci lool. jërë ngeen jëfoo mbokk yi kon ginnaaw boo xam nag ni génn nañ ci bernde yi. Euh, la ca desoon rek mooy ñu daal di dem ci waxtaanukaay bi nga xam nag ni moom lañ jagle barab la buñ jagleel boo xam ni fa la sëñ bi génn ñëw waaye laata sëñ bi di egsi ci jataay boobu euh, am na jataay boo xam ne nag jataay bu mbégte la waaye jataayu bànneex la boo xam ne it daal di nañ koy fay defal loolu nag xam ngeen ay borom xam-xam fu ñu daje rek fokk rek ñu daal di nekkaat ci seen waar loolu moo waraloon ñi nga xam ne suñu borom dañ na sédd ñu man li xam ne moom mooy way rawatina ci way arab bi keroog jataay ba xumboon na lool ndaxte ñu baree bari ci ñoom jóg nañ waaye nag daanaka waxtaan wi yëpp dañ kañ sëñ Muntaxa Mbàkke di ak ñaan yàlla mu yàgg fi ak feeñal ci it ak pëstéefam feeñal ci it ak taalibeem ak bëgg gi xam ne bëgg na ko xam-xam waaye soññee gi muy soññee yit seen xol sedd na ca lool ba tax na jagleel nañ ko fa ay way yu takko takko takku yoo xam ne wax dëgg jotaay ba yëngu woon na lool loola it day firndeel rek ni mbokk yi jataay bii nga xam ne sëñ Muntaxa tànn na ko ngir sargal leen ndax way yooyu képp ku cay yëkkati rek daanaka lañ cay dégg mooy ni kii day ku am xam-xam waaye nag ci jàmbaar la kon it sëñ Muntaxa lii mu def nii wax dëgg yàlla doon na loo xam ne it waykat yi feeñal nañ fa waar wi ñu nekk ni ñoom it ñoo ngi cay pësteefu ba yelloo nañ jataay boobu kon xam naa rek ñu ànd ak ci jataayu way boobu الفتح الذي أمسى أسابقك الغمي مرامي وحاجاتي كل لدى كل خجلا ولكن جلت هنيسر النسم مقامات خير الخلق خير ران سورة مقامات خير الخلق يا خير ربي مهابة فلتا ران سورة محمد المختار لا خلق عليه سلام من لولا امرك المكمل محمد المهروف ماهن ومانئ وبالحس مخصوص مصون عن الوسم moo tax ma waxoon ni la in daa minni al-umru fi ghayri taa'ili wa taawa'tu nafsi fi al-hawa wal-abaatili وتهت ببيداء الغواية حائرة وأمسيت عن صبح المنى بمراحلي fa inni bi hamdillahi asbaxtu indaman bi nadratihi yurqa li ala almanazili imaami sawi alirfaani min gayri miryatin wa jaamici ashtaati alula walfadaili wa muxyi sabili alxaqi bacda duruusihi wa baxri culuumi addiini min gayri saaxili wa shamsin badat bilgarbi daama tuluucuha wa badrin bi xawlillahi laysa bi aafili wa sheyqin yurabbi saalikiina bi xaalihi wa in qaala lam yatruk maqaalan li qaa'ili wa sheyqin yurabbi saalikiina bi xaalihi wa in qaala lam yatruk maqaalan li qaa'ili raxiimun lahu bilxaqi shiddatu ra'fatin wa xafdi janaaxi dicaafi l araamili yamiinan la in kaana al axiira zamaanuhu fa inna lahu taqdiima bayna al awaa'ili hanii'an wa busraa ixwatii bi wujuudihi falaa rayba an luqyaahu asnaa rasaa'ili fa najlu lbashiiri fa najlu lbashiiri almuntaqaa alami alladi ala baabihi xuttat rixaalu afaadili fa najlu lbashiiri almuntaqa alami alladi ala baabihi xuttat rixaalul afaadili xanaanayka say xanaanayka say shayqi xanaanayka shayqi sayidi sanadi alladi ilayhi istinaadi fi ishtidaadi nawaasili fa qalbi mariidun fi yadayka cilaajuhu wa taxliisuhu min da'bihi almutataawili kasiirun xaqiirun maa lahu cuddatun siwaa widaadikumu birruuxi laysa bizaa'ili wa kam mithluhu qad faaza bil qurbi minkumu wa naala bi fadlin minkumu gayra naa'ili uhidta mugiisan mugniyan man ajartahu fa jita fa jitu ilaykum haariban min gawaa'ili wa alqaytu raxlii fi finaakum wa laysa lii siwaakum wa inni ankumu gayru raaxili أغثني أغثني أيها الغوث إنني أسير لنفسي أولعت بالرزائل فلا زلت للهفان تشفي غليله ولا زلت مامولا غياثا لآملي فأختم بتسليمي صلاتي على النبي وآل وأصحاب تدوم بعاجلي mbokk yi ñu déglu kon xasidak Serigne Abdoul Ahad Niang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 lana sharafun wal ilmu yashhaduhu ajal wa fil jawwi maa yuuxi ilal fawzi bil amal lana sharafun wal ilmu yashhaduhu ajal wa fil jawwi maa yuuxi ilal fawzi bil amal laqad wajjaha shaykhun nidaa'aka da'bihi ilaa ahli ilmin fastajaabu alaa ajal wa hal ta'rifu al asbaaba وهل تعرف الأسباب أسباب ذا اللقاء أيا أيها المدعو في ساحة المحل لحس وتكريم وتأييد خطوة إلى العلم مع وصل وتأنيس ذي عمل أيا شيخنا يا منتقانا لمنتقى بما ينتقى من مفخر العز لا جدل أيا شيخنا يا منتقانا لمنتقى بما ينتقى من مفخر العز لا جدل la in labisa sindiidu sawba mukarramin fa anta libaasal juudi xollita yaa batal wa in wasala almaaruufu bilbirri lil ulaa fa anta zimaamal birri udicta faxtafil wa in qiila hal yurja li dal jiili waalidun fa qawli naam sëñ muntaqa waalidun ajal wa in qulta man yadcu ila alcilmi naasiran ahaaliyahu fa sheyqu yamsuluka almasal wa in dukira al mawsuufu bil azmi saadiqan fa hada mithaalu al wasfi in qaala aw faal wa siimatuhu ilmun wa daydanuhu nada wa himmatuhu nashrun li ilmin bila malal wa niyatuhu sulhun wa manhajuhu safa riaayatuhu lil maslahaati ma al musul wa kam min xitaabin saadirin minhu haawiyan lawaazima ta'yiidin li di rusdi mu'tadil tara qawlahu min sadrihi mutaqatti'an li yaxtaara min alfaazihi xayra ma nuqil yuhaawilu irdaa aljamiici lidaa yura muxaatibana binnushi yurshidu man gafal lihaada lahu fi kulli qalbin mahabbatun yujassiduha alinsaafu fi badli ma badal ajastu an ilityaani bilmathi walsanaa ala ma lahu min safwati alxulyi walxulal walakinna ma araftuha fi sahifati hadiyatu mashruufin bi xubbin qad ictuqil fa ish jaamian min dil wara wa habibihi wa xaadimihi wannaasi ridwana di nihal ilayka min almawla alkarimi ridaauhu wa min jumlati alaxyaari fi hisbihi ka kul salaatun wa taslimun min allahi rabbina ala xayri mabuusin xawaa safwata almilal maa al aali wal ashaabi ahli alhuda maan wa fi ljawwi maa yuuxi ila alfawzi bil amal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi arrahmani irrahim hëjël balaa bi la طيف زار بالضرم وهيجت لوعة بالقلب مصطرم هاجت بلابل طيف زار بالضرم وهيجت لوعة بالقلب مصطرم فآلمتني وأودت طيب ساحتها وفي الفؤاد حديث الحب والصدم حينا أسالم أحيانا أزجرها فلن تبالي ولن تقصر بذاك عمي fa rubbama jaadatil aynaani min tolalin xaalin dawaarisa bayna rëyi wa ratami fa kullu baabin min al abwaabi atruquhu rajaa man yataxaddaa xusnu bi shabimi baaban fa baaban ilaa an qultu jaahiratan laysa ala nnaasi min xubbin wala raxami fa xaatabatnii lisaanul xaali inna laha xillun lahu cheikhu yashfi akbara saqami cheikhun naqiyun nabihun xaadiqun fatinun xirqun sunniyun saniyun duna ma sa ami wa aalimun fanawiyun mufliqun shahimun wa aamilun xaashiun shaafin li wajdihimi yaa la jamaati kaana cheikhu qaa'idahum fi llaahi waddiini lil atbaaci walwadami tuubaa li shaxsin muridin laasa bi saydin laa yaskutu dahra an cheyin min al izami qaala almuriduuna wal ixwaanu kulluhumu hada muridun zakiyun saadiqu lhimami tunsiika qussan wa suxbaanan wa xaatimahum fi ljuudi walilmi fi linctaa'i kaddiyami luuzu wa cuuju ila baxrin yafuuru bicir faanin wa cilmin wa sacyin gayri mustalimi abulyataama ma'aalul murmiliina sima lal aamini daahili lxayraana daawakami mudaafaqi sadri xammaalul mataacibi bal mayru tariqati faxru diine wal xikami aynu diraayati bal aynu lqanaacati bal aynu samaaxati bal aynu salaaxi numi yusaaxibu nnaasa billiini lataafati ma shawqin wa xubbin wa islaahin an lxusami jazaahu mawlaahu maa qaalal madixu ridan mayru tariqati faxri diine wal xikami jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi yaa muntaqa alxayri yaa man tusifu ddiina in xudima ddiinu min aydi salaatina fa haula ixwatun labbaw nidaakumu waqad daawta lima fi ddiini yuxyiina ataw li tajdiidi ahdin minhumu lakumu wal kullu minhum li ixyaal ilmiyan woona ataw ilayka wa tuula al umri fi sixatin yadduuna lakum kama qad kunta tadduuna أعدك الشيخ في الجيل المعاصر كي تكون من بيننا دوما ترقينا قاك ربك رمزا للتقى معنا تحيي العلا وفي درب الحق تهدينا عش سالما يا رجاء الجيل قاطبة yaxzuuna xazwakumu dawman wa yaqfuuna salaatu rabbi maa tasliimi fi abadin ala nabiyi rasulillahi yaasiina asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Sam moo wax xasida gi nee na jazaakumu cheikhana yaa muntaxa samadu xayran wa taala lakum fi zamani al amadi mukammilan kulla ma nawaytumu zamana wa an janabikumu tajannabal wabadu muayyisan minkumu almalcuuna walfajara wa taaridan cankumu alladina qad xasaduu wa zaadakum nicaman bisixatin qurinat wa taacatan zaanaha alxalaalu walragadu anfaqtumu maalakum ala alladina humu qad haajaru fi sabilillahi wajtahadu wa bictumu naafidan mustaxsinan qiyama qiyamu wa bictumu naafidan mustaxsinan qiyamu bima alladi cinda man baaqin wa munfaridu wa bitumu naaqisan wa faaniyan ajala bi niamin bi niamin yantafi l ixsaau wannafadu salaktumu fi tariqatin li jaddikumu wa laysa yashgalukum maalun wala safadu min rabbina nabtagi bi jaahi xaadimi man afdalu man ursilu wa xayru man abadu tatwila umrikumu fiina wa alhamakum shukran ala niamin anha antafa adadu shukran ala niamin anha antafa adadu wa an yus wa an yusabbirakum ala ibadatihi bima bihi amara alkitaabu wassanadu wa an manaahin karahatan wa mahramatan bi usmatin wantaha li gayrikum kamadu wa an yaquuda lakum jamiica matlabikum wa an yuthabbitana fi man humu saidu wa an yuaminakum min saxtihi min suxtihi abada amnan yuammimuna wa man lahu rachadu wa an yajuuda bi xusnil xatmi inda inda tama min lakum min maa lakum azalan qad katabal somadu wa an yajuuda bi xusnil xatmi indama wa an yajuuda bi xusnil xatmi inda tama min maa lakum azalan qad katabal somadu nuqaddimu taxiyaatana ila saxsiyaatikum al-aziza بتقديم الشيخ محمد المنتقى البصير الذي ما زال جوال أفكاره يتجول في ميدان تصريف العلم والعلماء وهو, ال وهو الذي يتميز في ملابس التواضع وخفض الجناح للكل wa baad haadihi qasidatun nawwahtu biha baad madaaya cheikh muntaqa albasir mbakke wa matlauha ya rabbana tawi albaqaai almuntaqa fiina muaafan wakfihi ma yuttaqa najlil bashirin nabbi cheikhu asrihi أكرم به من ذي مقام نابه ذاك الذي بنده ضن الزمان ولم يجار خط في طهر الجنان وفي تواضع وفي صدق وفي زهد وقوف الله مثل الصلف وفي محبة القديم جده وسعيه دوما لصون إرسه كجده في حب العلم وفي إكرام أهل العلم أهل الشرف والتجسه غير الجساء ربنا ويسرا ما وده من المنى بجاه شيخنا الرضي بجاه شيخنا الرضي قديم wajaahi sayyidil waral maqduum wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. aawudu billah bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. inna waliyallah wa ma tawfiiqi illa billah wa baadu fa haasihi qasidatu matxin wa shukrin min almuridi Mouhamadou Mbaye li cheikhi Mouhamadul Muntaxa najli cheikhi Mouhamadul Bachir bi munaasabati xaflati takrimihi wa tasrifihi li ahli alqur'ani wal ulum xubban wa xidmatan lillahi wa lirrasuli wa li cheikhi alxadim fa jasaahu llahu xayran wa ataala lahu alumra wa amadda lahu sixata wal aafiyata bi jaahi cheikhi alxadim suma li yaalam almustamiu awil mutaali' anna awaa'ila al abyaati muqayyadatun bismihi muhammadul muntaqa mbakke muhammadun dikruhu ka sayyidil basari mudiifi sal muqril qawmi bil busari muhammadun zikruhu ka sayyidil basari mudiifu sal muqril qawmi bil busari xaasa alfadaila wal axlaaqa jumlataha fa samtu wal wasfu kal muxtaari min mudari muhammadul muntaqa muhammadul muntaqal muntaqan tuqiita min zumurin ulil manaaqibi ahlil xayri wa zafari min alqadiimi allasi maa misluhu basarun uurista xubban li ahlil ilmi wa suwari daamta amidata al islaami murtafian bi rafci himmati ahli al ilmi wannazari akramtana bi qiraa nafsiyatin wa qiraa ruuxiyatin xusta ridwanan min azumari lam ara mislaka fi xubbi alqadimi wa fi sidqi aliradati walinfaaqi lilbasari man daama fi lzikri aw fi lilmi yaxdimuhu fa sayxuna al muntaqa yuqriihi biddurari nafa ihanata ahlil jahli lil ulama birrafhi wal awni wat tasrifi lil gurari taral jamaata fiikum xayra sinsinatin taxuusuha kasihaabil kaasifi durari xallam xallabta bil xasmi wasit xilla zeynihuma wasilatal fawsi xalbal jamci han hadari xallabta bilxasmi wassidqi lazayni huma wasilata alfawsi xalbal jamci han hadari uuliita xikmata tasrifin wa takrimatin maa haazaha qattu illa sayidu rusuli baaraka fiika wa ahyaaka al ilahu madiida al umri bilxayri maasuman min alsharari ku fiita sarran rusixta sixxa fi amanin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 wasalaamaani ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa mawala haadihi qasidatun sukriyatun maqulatun fi cheikh muhammadin il muntaqa li taalibihi l xaqir saalih jonn arrefaani walamma kaana walamma kaana alqasida ala bahri lwaafir sammaynaha waafiru lmadxi wa shukr li mursidi nahdatil xidmati wal fikr falam nashtaq li misra wala al iraqi wala al irana fi shaddi al wathaqi falam nashtaq li misra wala al iraqi wala al irana fi shaddi al wathaqi wala lil faasi la la lil xijaazi siwa al xaramayni daaray zil buraaqi li naylil ilmi aw naylil amaani ladaynal muntaqa barqu sibaaqi لدينا المنتقى برق السباق محمد بن عالمنا محمد محمد بن عالمنا محمد محمد بن أحمد ذي الوفاق محامد كلهم سقط أسامي هموم الحمد من بين الرفاق وحز الابن يسمو من سماه فيسمو